xalif général bu waa jaamal moo yebal délégation bu takku ñu ñëwoon ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir doon ko yëgal ziar bi ñu amal at mu jot ci jaamal jagleel ko El ab Ablaye Cissé nekkoon boroom xam-xam bu mag lool ren jii nag ñoom ñu ne ziar bi dañ ko jagleel Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir. bi nga xam ne amuñ lu may moom muy bisab siyaare dañ tuddee ko ko amuñ bis bu ëpp boobu ka leen yónni ak ñoom ci seen wàll ak bopp moo leen wax ne bis bi ren yow lañ ko tuddee.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 jaamal am diggante bu yàgg lool ak Serigne Momadou Anta loolee nekk liggéey bu am solo boo xam ne saa su ne waa kër Serigne Touba yi ñu ngi koy yeesal. ngir xam itam li nga xam ne doxoon na diggante sunu jur wu tedd wa di sunu maam El Hadj Abdoulaye Cissé borom jaamal ak jëmm ju tedd jooju ñu doon wax Mamour Anta Sali Mbacke nga xam ne ma nga laxase woon ci Saalum dem fekk ko ci Mbacke Kajoor mu jàngal ko li nga xam ne mooy fiq ak mboolem xam-xam aju ci wàllu naxwa te loolu ñu ko waxee xol yëpp dañuy daal di sedd ndax xam-xam dong moo siite ci àdduna te lool yi nun ñëpp xam nañ ko njàng moom mi mu fa def ba mu fa nekkee sëriñ bi gërëm na ko yëkkati doomam di maam Cheikh Anta moom gaawaan teg ko ci loxoom moo ko dalal alquran ba ci soratu nax li mu door ko faa bàyyi daal di continuer dem gànnaar jàngi mu yëkkati itam suñu maam suñu maam Anta jox ko ko muy ndey daaraam mu woo itam maam Jaara ne ko demal nga féete kii yàgg goo gi ci Mbàkke Kajoor mooy dox di dox ba 1978 mag ñi ñëw fii yeesal ko 82 nag mboolem jaamal kii nga gis mu toog ak kilifa yi toog yëpp àndandoor def délégation ñëw fekk fi si Abdoulaye Lahat mu ne leen nan ko fekk fa euh, Touba Belel nu fekk ko fa mu teral leen toppatoo leen fàttali leen démb délégation bu tool noonu nii nag euh, mu ngi door a répété waat maanaam mu ngi door a dellu si waat bis ni tey ci sa jëmm ju sell ji ba ñëwee itam li dalee 82 ba léegi kenn ku ne xam ne ne Seexul Xadiim euh, liggéeyam ci lislaam mboolem jullit yi ñoom la féete woon di leen ko liggéeyal ndax bi nga xamee ne ma ngay ñaan ñaanam ga yaa maalikal mulki yaa man jalaan iwadin irham jamihel waraa la wax ba muy ñaan tam ak mucc wa najji nii wa jamii al muslimina maan wa najji waalidati door a ñëw jëmm jooju nag képp ku ko wuutu lépp loo doxal noonu rek la war a mën a demee délégation bi bi ñu agsee ki nga xam ne moo di Serigne Bassirou Mbacke Mbul di doom ci Serigne Mountakha Mbacke Bachir. waxtaan ak ñoom dalal leen ci résidence Khadim Rasoul Serigne bi nag santaan na bu baax a baax délégation bi nga xam ne moom la xalif bu jaamal yabal ci moom. ak yitte gi nga xam ne Serigne bi am na ko ci dëkk bi nga xam ne moo di jaamal di dëkkub alxuraanul karim. ba ngeen egsee la ñëw leeral sëñ bi seen ñëw li ngeen wax itam mat mat na sëkk. ndax fa ko bokk gi fa mu tàmbalee kóllëre gi yàgg na lool lépp tëb tuddaan na li nga tudd lépp sëñ bi yëg na ko fekk xamoon na ko ba noppi téyel leen ko it moo tax mu dalal leen nii ngeen nekk ba mbooloo mi wàññi ngeen ñëw mu toog ak yéen man a am ak yéen jotaay waxtaan ak yéen saafonte ak yéen loolu moo tax booba léegi wooguñ leen woon kon. Hmm.